Honorable Oumar Sy se prépare. jërëjëf madame maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur les ministres di nuyu seen collaborateurs yi ngeen àndal may nuyu votre DAGE monsieur Diallo waaye di nuyu suñu collègue Juma Souare di ko tatagal di nuyu sama collègue député yi monsieur le ministre da nga dégg bu ne tey waaye lépp loo fi mës a dégg rek xamal ne yàlla mi nga xam ne moo yor lépp di séddale ñëpp amuñu kon ñëpp ci Sénégal mënuñoo am ci emploi des jeunes monsieur le ministre objectif bi ngeen amoon muy 65000 jeunes 65000 emplois weesu ngeen ko. président Macky Sall moom rek ci président yi wër Afrique moom moo am politique nationale de jeunesse kon yéene la yéene boo xam ne xam na ne emploi moom ñëpp ñëw liggéeyandoo cim réew mu jël milliards yu bëri koppar yu bëri def ko na ndaw ñi la koy defal monsieur le ministre yaa ngi def loo man dañ lay wax na nga dolli dolli foo ko déggee ñu gën a jëm ca kanam la waaye du yaafus monsieur le ministre dans le département de Linguère bëgg nañ nga gën a baral travaux yi nga xam ne moo fa am pour maison de la jeunesse ñu lay félicité ñi ngi gis ngay inauguré ay maison de la jeunesse di xalaat ndaw ñi di waxtaan ak ndaw ñi waaye la dag de doo ji monsieur le ministre su amee ñun département de Linguère lépp lu ñuy wut ci emploi des jeunes dana ko absorbé kon nañ ci gaaw nañ ko taxawal monsieur le président de la république képp ku taxaw fii di wax ne réussir politique jeune da ngay wax lu la neex ma ne la mbënd mi ngay gis enseignant bu bàyyi postam dugg ci gaal gi États-Unis gënal ko c'est pas le président Macky nga xool ku am fi ay boutique am di jaay bàyyi ko fi dem ci nga ci mbënd mi lu nekk nga di ko gis mais liggéey nag dafa am fu muy commencé kenn mënul yeewu sa kër am li la neex da ngay commencé ci benn jëm ci fukk ñun ñii tey ñun jigéen ñii rek dañuy commencé ci jaay ndox bay wàcc ay conteneur sénégalais moo war a gëm ne ne moom mooy ndaw réew mi moo war a liggéey moo war a développer sa pays waaye mun a nekk nag dafa dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne dañu jël xale yi di leen encourager di leen gëmal naan réew mi doxul dëkk bi doxul ñooñu am nañ ci part de responsabilité muy waa boor bee ak ña ma ko war a wax dans ce pays li président Macky def ci emploi des jeunes kenn mësu koo def waaye yàlla mi nga xam ne day séddale sax matale wut département de Linguère monsieur le ministre loo ñu mën a dolli ñu jël je vous remercie madame la présidente. je vous remercie chers collègues.